asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal moo dellu si di leen siyaare bu baax di siyaare mboolem koy topp Fall 94 Walf Sénégal di siyaare Sëriñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi tànd ko wér di siyaare mboolem xalifa généraux yi nekk ci biir Sénégal ki yëpp di jaajëf bu baax a baax sunu partenaire bi di Assane mbay nekk ca diwaanu Maroc eh, yaakaar naa ne di yëngu ci wàllu commerce ci wàllu jënd ak jaay mu. am nag oto boo xam day dem euh, euh, Sénégal ak di euh, ñëw Maroc yaakaar naa ne nag képp koo xam da nga am bagage bu nekk Maroc pour nga bëgg cee jot nu mu gën a gaawe boo jokkoog Assane Mbaye ca tiiwaanu Maroc incha allah rabbi da nga jot ci sa bagage boobu ni mu gën a gaawe ak noo ko bëggee ndax lu jëm ci wàllu CP e ak yooyu yëpp macha allah da ci yëngu kon nag ngeen xamee ko noonu bu baax a baax a baax lu jëm ci mbirum transfert tamit mooy transfert de l'argent euh, yaakaar naa boo soxla euh, xaalis pour ñu wecc la tamit incha allah boo demee ci Assane Mbaye Assane Mbaye dina la ko defal nu mu gën a yombe bu fekkee da am tamit xaalis boo xam daa war a jógee foofu noonu ñëw fii ci euh, Sénégal ci say bokk boo demee ci Assane Baye boo ko joxee say mbokk den ci jot nu mu gën a gaawee ci njëg yu yomb nag macha allah kon Assane Baye ngoo di suñu partenaire di suñu sponsor waaw tey nag dañoo jëm ci euh, jàmbaar joo xam ne yaakaar naa ne Sénégal dootuñu ko fàtte euh, jullit yi dootuñu ko fàtte rawatina murit yi muy Serigne Abdou Lahad Mbacké yàlla na yàlla dolli ay leeram te taas ñu ci barkeem yaakaar naa ne nag Serigne Abdou Lahad ci gis-gisam bu yaatu ci xam-xamam bu yaatu bi yaakaar naa ne euh, bari na loo xam ne ni amoon na ci dëkk bi sëñ Abdou Lahad moo ko fi dindi woon ba mu set wicc ba amatul woon ci dëkk bi mu jëm ci yooyu nga xam ne yaakaar naa ne lu jëm ci musique lu jëm ci football lu jëm ci xeeti pon yooyu yëpp sëñ Abdou Lahad jële woon na ko fi yëpp ba jommi yàlla yi tey jii loolu yëpp nag ba tey jii may wax ak yow nii loolu jëlee nañ ko fi nga xam ne kon Euh, li ko ñoroon mooy euh, Sénégal defarug Sénégal li ko ñoroon mooy defarug dëkk bi di euh, Touba mu nekkoon koo xam ni nag gis-gisam yaatu woon na lool ci lépp nag ci saayir ci baatin waaw nga xam ni tey boo xoolee sax raay bi yaakaar naa ne nit ñi war nañu fàttalikuwaat bu baax a baax a baax raay bi ndax raay bi yaakaar naa ne war nañ koy gën a defaraat bu baax raay bi war nañ ko defaraat bu baax a baax a baax bu ma nee defaraat nag mooy Euh, jéem a xool nu ñu organiser waate euh, defaraat raay bi ba maanaam ñu bañ ko aj ci euh, màggalu Tuubaa rek bu ko defee autorail bi di dem di ñëw mu nekkaat loo xam ne ni lu ñu yeesalaat lay boo lay doon ndax loolu bu ñu ko defee yaakaar naa ne Euh, dana taxaat euh, dana tax euh, dem beeg dikk bi gën a yemb comme ni mu yembo ci ila Touba bi waaw ndax autorail moom ci Touba yaakaar naa ne lu am solo la kan nag nañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax yaakaar naa ne nag jëmm ji nekk na jëmm joo xam ne ni Touba moom ñor na ko lool yooyu nga xam ne dama ko tudd nga xam ne jële woon na ko fi yaakaar naa ne nag loolu ñi nga xam dañoo nekk Touba di ay doomi Touba Eh, di dund politique di dund ci yeneen yoo xam ne ni nañuy fàttali ñi nga xam ne ni ay politiciens yu mag lañ nañ leen di fàttali li nga xam ne ni moo mat a fàttali nañuy def ay discours yoo xam discours yu yoo xam ne ni dafay jëm ci Touba ngir suqaliwaat Touba bu baax Euh, ginnaaw bi nga xamee ni am nañ ay doomi doomi Touba yoo xam ne nii ay jàmbaar lan te ay bonne volonté lañ euh, ñu taxaw bu baax a baax ngir ñu defaraat sunu raay bi defaraat li nga xam ne nii moo jëm ci Touba ngir yaatal euh, lu baree baree bari ci Touba ngir li nga xam ne ni moo di jëmm ju sell ji nga xam ne Touba da ko ñoroon ci mbaaxu sëñ